au Sénégal tey on n'en entend pas parler boog dañ yaakaar ne dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoo ko moom. voilà donc euh, tey euh, des sports maa ngi ko fa bàyyi donc euh, le président Ousmane Sonko n'a pas pu venir donc il a dépêché le ministre des sports madame euh, Khady Diène Gaye donc euh, elle était là et du haut de la tribune je l'ai regardée elle xam naa ni lu mu seetaan captivé na ko voilà wax nañ ko suñuy mbëbët ak yooyu yëpp donc voilà neen dañ ci taxaw bu baax a baax donc euh, concernant dama nekk seen mbébét mbébétu li nga xamante ne mooy course voilà ñun suñu problème présentement c'est euh, problème boo xam ne c'est côté infrastructure la. Mhm. voilà on a besoin d'un hippodrome national par exemple on en a toujours pas benn hippodrome la ñuy dawalee mooy hippodrome bu Thiès bi e vraiment c'est pas nekkul hippodrome boo xamante ne ça répond au normes international mhm. on aussi besoin de pistes de galop parce que xam nañ ne que secteurs yi fas yi nekk yëpp en général. kër yi dañuy dem ba dañuy nangu piste de galop yooyu noonu te fas yi foofu la ñuy entraîner. Mhm. voilà mais ba gis nga doléance bi ngeen wax nii presque ñu fi nekkoon jamono Ablaye Wade ci Macky Sall ba ci tey ki nga xamante ne mooy euh, président Bassirou Diomaye même doléance ñoo fi nekkaat mais jusqu'à présent pour réalisation est ce que am ngeen si yaakaar. si si am naa ci yaakaar bu baax a baax parce que ministre bi ma gis tey était très euh, lors de, du Grand Prix de, de l'élevage, on a eu la présence du ministre de l'élevage mhm. qui était là-bas, euh, le docteur Mabouba Diagne. Mhm. donc euh, laaj nañu suñu dix points yi nga xamante ne ni moo ñu gën a soxal. Mhm. et que loo xamante ne nii bu taxawee dinañu mën a dim gën a dimbali ci li nga xamante ne nii mooy course épique. te euh, nee na dina ci taxaw bu baax a baax. mais seen mission bokk na pour sénégalais gën a maanaam euh, di di gën a xam li nga xamante moo di course épique parce que. gars yi pour ñu est-ce que sax sénégalais yu bari euh, miin nañ li nga xamante ne moo di course bi fii ci Sénégal parce que buñ suñ koy dégg wax pas après journalistes yi mais sénégalais yi miinuñu li nga ne moo di course yéen a a gën li nga xamante ne moo di course bi. dëgg la Babacar donc euh, boo xoolee sport hippique boo xoolee en Europe mooy deuxième industrie bi gën a am doole. Mm. après industrie automobile te benn fas bu nekk da xool euh, lu mat cinq personnes wala plus da koy wër. Mm-hmm. parce que jockey bi entraîneur ki nga xamante ne mooy def massage yi soins yi et tout donc euh, c'est toute une organisation derrière quoi nekk na loo xamante ne ni tamit dafay fédérer emploi bu bari bari donc euh, voilà donc course hippique euh, sport la boo xamante ne sénégalais yi xamuñu ko tellement. des fois sax des gens se demandent ndax dina am. am na ñoo xam ne dañ la naan su ma ko xamoon damay ñëw. donc euh, mais sport la boo xamante ne mi ngi fii et nit ñi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. seen tendon d'Achille pour que Euh, kenn xamul nu mu demee pour que aussi est-ce que jotul euh, pour ngeen mën a nit ñi fexe ba dégg leen au niveau national compétition ñu gën ko multiplier yaa ngi wax waxu moyen également c'est une chose assez importante qu'on veut tey euh, won Sénégalais une certaine discipline boo xam ne tey mu ngi fi c'est assez intéressant ce que vous faites mais pour dégg-dégg bi gën a am tey ces compétitions est que jotul tam ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen jël ko fësal ko bu baax a wax mais lan moo leen bloqué ba tey Sénégalais yi mënuñu xam tey li nga moom mooy les courses hippiques voilà donc euh, ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax donc sénégalais en général boo xoolee lim lay wax mooy football bi lañ gën a ràññee donc sport équestre en général sport sport en général comme mala la donc en général ñi ko xamul tellement dañ koy dañ koy daw du ñu ko approché tellement mais euh, nekk na loo xamante ne nii vraiment euh, voilà day générer liggéey bu bari quoi voilà. mais yow yow yow en tant que jigéen yow la moo la boole li nga xamante mooy course hippique. Euh, moi je suis passionnée je suis cavalière en même temps donc course hippique nekk loo xamante ne ni maa ngi koy suivre depuis 2008 donc euh, nii nii rek dama dem hippodrome pour seetaan donc euh, jusqu'à présent mu nekk loo xam ne ça m'a séduit comme beaucoup de jeunes tamit ku ci dugg rek. Mhm. en général ça se comme ça. mais dañu gis ci euh, yi fi ñuy daw yéen da ngeen daw ci nga xamante moo di suuf par rapport ak nga xamante ne moo di Europe dañu gis ci ci maanaam dafa mel ni euh, comme athlète athlète yi ci ci ñuy daw loolu tamit c'est une aussi. waaw piste yi nag bari na am na ñuy daw ci gazon am na ñuy daw ci ban par exemple am na ñuy daw ci suuf donc ça dépend ci euh, course bi ak ci handicap bi muy présenté pour facile ci difficulté tout le temps y a des difficultés pour les chevaux mhm. donc y a des courses à risque mais y a des de plat tamit mhm. voilà yéen équipe bu bees ngeen mu nekk une première ngeen ngeen ngeen doog a entamé li nga xamante moo di seen seen seen seen mandat lan moo nekk seen mbébét pour seen seen euh, maanaam euh, seen mandat bi nga xamante ne Sénégalais yi euh, jox jox nañ leen ko. voilà équipe bu bees lañ donc on est là pour deux ans bii moo nekk suñu première année donc instant bi on est on en est au vingt troisième journée. Mm-hmm. donc dans trois journées moo ci des pour saison bi tëj. Mm-hmm. parce que nawet bi en général fas duñ daw. Mm-hmm. dañuy noppalu am soins yi et tout di waajal saison prochaine bi. voilà donc équipe bu. engagé la. Mm-hmm. vraiment on essaie de travailler là-dessus il a a la digitalisation. Mm-hmm. ñu ngi jéem a def tout pour que Sénégal yi gën a xam sport bi. Mm-hmm. donc on est en train de créer tamit benn site web boo xamante ne nii comme France Gallo si je peux prendre bu ma ko mënee jël comme exemple. boo xamante ne Sénégal yi bu fi duggee lépp lu soxla comme information relative à Fass bi jockey yi et tout palmarès Fass yi et tout. dañ koy mën a fekk foofu noonu. mais seen fédération tey voilà c'est un comité de gestion comité de gestion la euh, des courses et comité nationale de gestion donc euh, décret moo ko fal. Mhm. Euh, ministre des sports donc on est là pour deux ans renouvelable. Mm mais saison bi yaa waxawut dans deux deux jours de moo des mu jeex. voilà grand prix chef de l'État moo ci des. le 14 prochain. Mm -hmm. euh, suivi de deux autres courses mhm. normalement on devrait fermer. mais parce que bilan bi satisfaire ngeen am nga ci li nga ci doon wut wala am na yoo xamante ne war ngeen ko mën a joyante ci nga pour ngeen waajal li nga xamante ne mooy saison prochaine. voilà donc rejoindre un peu li monsieur doon wax sànq. voilà moi pense que waruñu xaar tout le temps état. Mhm. ci euh, état dañoo war a def de sorte que entreprise yi gunge ñu ci sport yi ñuy parce que sponsoring mooy doxal mbir. parce que boo xoolee football wala basket wala beneen sport en général à l'étranger sponsor yi. ñooy ñëw ñooy ñëw ñoo leen di accompagner et donc état li muy def en général mooy fédérer rek euh, wala euh, gunge leen. Mm-hmm. voilà mais sponsor yi mooy def euh, tout en général. Mm-hmm. donc je pense que état bi bu ñu taxawee ci loolu rek grande entreprise yi mën a accompagner sportif yi je pense que tout devrait bien se passer.